bisimilah ñu dalal la ñu dalal la. asalaamaaleykum euh, auditeurs ak auditrices yi déglu réew mi FM. Mhm. Bemba maa ngi lay nuyu mhm. di nuyu Diallo. Mhm. Euh, di rafetlu. ñëw bi ma ñëw fii. parce que Sénégal rek ma ñor. effectivement man maay le professeur Serigne Khadim Rassoul Thiam des îles d'Amérique. man maay ki bind le dernier rapport sur les hydrocarbures le rapport de de contribution bi le président Macky Sall doon wane à la télévision au dialogue national mm-hmm. man maa soulever l'affaire Akilee Senelec mm-hmm. man ma def ba le club des investisseurs sénégalais daanu mm-hmm. man maa wane li nga xamante ni l'éco c'est une supercherie man nag dama nekk jëmm joo xamante ni li ma ñor mooy solution ak proposer des solutions loolu moo ma ñor ci àdduna wax ju bëri xawma ko ndax Sénégal toll na foo xamante ni. il hmm. faut des solutions. dinañ ci àddu ah, dinañ loo ma laaj nag tey. Hmm. ci ci ci ci liy jëriñ. Euh, askan wi réew mi. Hmm. danaa la wax solution bi ñuy def tout de suite. te maanaam bakkan nekku ci. c'est réfléchi c'est mm-hmm. scientifique te mm-hmm. buñ ko defee réew mi dox. loolu képp moom moo bàyyi Sénégal ba léegi. émission gox bi ci loolu lay addu xool yan fànn lañu ñu war a mën a jaar tey ngir jot li nga xam ne nag moom moo jëm ci développement waaye ngir doon waxtaan bi euh, gis nañ ni taw bi ni ki démb laat ba mu maam yàlla bi ubbee euh, li nga xam ne moo di xéewal gi ba mu tokk ci réewum Sénégal taw bi bari na bari goo xam ne ñu ci am loraange bari na. ndox bi bari na def na ay jéye itam lan moo ci sa kàddu gu njëkk ginnaaw ba ma la bàyyee nga massawu askan wi d'abord ci coono gi nga xam ne tey ñu ngi ko jànkonteel ci taw bi. non cela dire que man li ma gëm mooy taw xewal la. Mhm. ndox xewal la. boo xoolee ni doomu adama quatre pour cent doomu aadama ndox la kon yàlla fonk na ndox. Mhm. kon ñun aussi dañu war a fonk ndox. Mhm. ndax euh, ndox jant bi suuf si. Mhm. Euh, mooy éléments yi nga xamante ni buñ ko amee ci am réew dañu war a kontaan. Mhm. te surtout que ñun am nañu trois cent soixante cinq ou trois cent soixante six jours de soleil. Mhm. kon ndox mi bëriwaay bi ba tey maanaam euh, man lu ma rafetlu la. li nga xamante ni nag maa ko ñeewantal mooy suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi ci biir ndox mi. seen kër ndox mi jël na ko. Euh, ñu nekk ci difficulté yu metti mhm. euh, ñi nga xamante ni nekk nañ ci zone yi nga xamante ni ay ay yu baax la ñoo ñu yëguñu dara. Mhm. mais tey li may wax Sénégal. mais géejawaay nga dëkk ba jox ñu. non dëkkuma géejawaay Touba laa dëkk. waaw jox ñu pist pay mi nga xam ne nag moo jëm ci diwaanu géejawaay bi. non ça veut dire que man piste yi may joxe maanaam piste euh, globale la pour tout les Sénégal. Mhm. parce que sëñ Dramé. yàlla. suufam si mhm. du taa xam nga fan mooy taa mhm. fu am ban mooy taa léegi euh, dëkkuwaay mhm. bu fekkee ni defuñu plan d'assainissement laata nit ñi di dëkk doo taxaw di wax ni maanaam nit ñi dañoo dañoo dañoo dëkk ci ay dex maanaam euh, fii fii ay dex la woon fii ay étang la woon déedéet problème bu amee ba nga càmbar problème bi da nga ko da da ngay wut solution mais tout de suite. Mhm. tey Sénégal. Mhm. depuis plus de dix ans. Mhm. lii am nii mi ngi am de manière mais récurrente. et pourtant le président Macky Sall nee na teg na cent milliards parfois même sept cent cinquante milliards pour ñu defar maanaam mbënd mi. kon nga xam ni kon le président de la République am na volonté. defar yan saay-saay ñoo yore xaalis bi ba le président Macky Sall di waxaat maanaam bilan et cetera et kon liggéey bi defuñu ko ni mu waree. mooy li ma wax barki. da nga gis ni danga dafa liggéey bi dafa sooxe. dañoo liggéeyul. Hmm. laa wax liggéey liggéeyuñu parce que liggéey moom maanaam dañ ko teg ci yoon. fan la tàggee. la première étape mooy tey fi nekk nii euh, zone bleue yi nekk Sénégal yëpp dañ ko doon coché. man euh, temps bi le président euh, temps bi le premier ministre Abdoul Mbaye hmm. di diriger mais Sénégal gis naa ko bi mbind mi amee mu jël hélico bi. Hmm. di di di di di di wër Dakaaru ak hélicoptère bi. mais ñoom mënoon nañ jël ay techniciens. ñu wër dakaar photographier maanaam euh, fi taa yëpp bu boobaa sur le euh, sur le plan des papiers. Mm-hmm. mën nañu répertorier toutes les zones bleues mais du Sénégal. Mm-hmm. président Macky Sall tey fi mu nekk nii daf leen waroon a jox quinze jours maximum. zone zone bleue mooy zone bleue moom mooy les zones inondables mooy mm-hmm. fii taa. mais xam nga ni suuf du taa suuf. suuf du taa suuf éponge la. fii taa mooy fi am ban yi. buñ ko coché. solution bi gën a simple euh, dans la maanaam ci mécanique maanaam des fluides. comme fi muy taa ban la mun nañu xam autoru maanaam ndox mi nan la toll le volume de pluviométrie mën nañ ko xam mm-hmm. buñ ko xamee mm-hmm. euh, dañuy def euh, à au plus trois cent mètres mm-hmm. ñu def euh, des rétenteurs Euh, de nivellement inférieur mm bu ndox mi yéegee ba un mètre mm -hmm. léegi rétenteurs yi dañuy na nekk ba moins de mètres pour permettre tey fi mu nekk nii bu ñu ko fa diriger. Mhm. maanaam dinañu am temps d'attente boo xamante ni euh, fi euh, ci suufu rétenteur bi. Mhm. boo fa defee benn tuyau da nga koy raccorder ak toutes les canalisations mais urbaines. Mhm. tey fi mu nekk nii ñun Sénégal am nañu chance boo xamante ni vraiment c'est extraordinaire. amul benn point bleu boo xamante ni fi mu nekk ak géej gi ëpp na huit kilomètres. donc. Euh, man dama bëri ki démb maanaam TFM dama mer ma ni mais pour quelle raison fii mu am ay ingénieurs yoo xamante ni def nañu hydrologie gars yoo xamante ni ils maîtrisent la mais la mécanique mais des fluides pourquoi loolu maanaam une solution aussi simple mënuñu ko def xanaa les ñiy dirige dëkk bi xanaa bu ñuy dem à l'étranger dañuy tiim di xool asamaan si xanaa duñu xool suuf si gis euh, maanaam euh, yeneen dëkk yi nu leen defaree demal Gambie Batters loolu mooy solution bi nga xamante ni moom lañoo ñu waroon def fii euh, démb bi ma gisee maanaam li xew Thiès bi ma gisee li xew maanaam euh, dans de euh, bëri na Sokone Sokone mais tout ça. Mhm. xam nga affaire bi fan lay topp. Mhm. tali bi lay topp. bu toppee tali bi la solution elle est simple. mooy lan dinaa ko wax. Mhm. rigole rigole ñëpp xam nañ lañ mooy rigole. mooy tey fi mu nekk nii mais tali bi sur ces trois mètres cinquante mhm. au lieu que nga bu la neexee nga def ko ci rebord yi mhm. bu la neexee nga def ko ci diggu tali bi et puis mais la dimension mais minimale mooy euh, trente centimètres mais la profondeur est de soixante mhm. boo ko defee ndox du taxaw ci tali bi dina am conduit bi muy jaar conduit boobu conduit boobu nag nga wut ay interconnexion physique yoo xamante ne moom ngay dispatché bu fekkee ni Sokone la euh, maanaam euh, lag bi soriwul Euh, et cetera et mais léegi am na ñoo xamante ni mun a euh, mais mun nañu wax ni maanaam professeur ndox mi te ñun soxla nañu ndox na ñu bay sur toute l'année c'est ce que je disais mais euh, maanaam ci TFM la la solution maanaam américaine. Mm-hmm. tey fu mu nekk nii zone bleue yi buñ ko répertorier. Mm-hmm. Sénégal mun na di jaay ndox. sur tout l' année dans tout la sous-région. ci naka mais dafari usine boo xamante ni maanaam day intercepter ndoxu taw bi. Hmm. purifier ko ainsi de suite ñu def ko maanaam. en euh, bouteille mm dugal ko ci yeneen rétenteur yoo xamante ni euh, de manière mais industrielle kii bi moo koy euh, maanaam usines yi ñoom ñoo koy contrôler hmm. et puis en plus de cela côté ñàng toute cette zone la man je vis mais dans les euh, mais dans les îles d'Amérique munoon nañu am ay banane ay bananeraies yoo xamante ni hmm. maanaam Sénégal Euh, banaana boo xoolee sax maanaam ñu may la cinq kilos mun nañ fi def ay ay ay champs wu ananas. Mhm. et cetera il faut une volonté politique boo xamante ni xaalis bi ñuy jël ci inondation bi. Mhm. dañ koy euh, euh, dañ koy def en multiplex. Mhm. avec des projets agricoles. def ko maanaam aussi mu nekk mais des projets industriels sur l'eau de telle sorte que tey fi mu nekk nii. ndox mi ñuy am. Mhm. bu ci kanamee dañuy wax ni sax doyul. et puis euh, tey fi mu nekk nii. Mhm. am na benn euh, tuyauterie bu commencé euh, fii ñu nekk nii. Mhm. à Sodida. jëm Castor jëm Fass ainsi de suite maanaam bu maanaam mu toj. mais je ne comprends pas pour quelle raison ñoom fu mu nekk nii. la solution ñoom du lu ñu bëgg a def nii de. li ñu bëgg a nii c'est de la foutaise. bëgga a jaaraat sur des conduits usés de soixante-dix ans. c'est de la foutaise. Mhm. la li nga xamante ni moom la le président Macky Sall war a imposer. Mhm. defar lu bees. Mhm. moo gën a gaaw ko réparer. mais ah. tey ñàkkul ni waxtaan bi nga xam ne nag moom moo jëm fële nga xam ne ca ministère de l' intérieur dogal bi nga xam ni nag jël na ko démb muy mu déclencher plan Orsec ñàkkul ni tey ay solution dina fa mën a génn ngir ñu éradiquer problème mais depuis dix ans je euh, ñàkkul solution génn ñàkkul solution génn. ah dix ans xaalis bi fu mu dugg. mais pour quelle raison mënuñu appliquer man li ma wax. li ma wax li ma wax li ma wax waxi nit la wala du waxi nee naa. est ce que bind nga jox ko njiitu réew bi non nee naa. Mhm. suuf du taa fii taa dafay am argile bu fekkee ni sur euh, une distance de un kilomètre fépp maanaam argile la fii point central bi nekk mi à au plus trois cent tu fais un rétenteur autoru maanaam inondation bi xam nañ ko depuis des années la pluie la pluviométrie au Sénégal on maîtrise depuis mille mille neuf cent gars yi bind nañ ko teg kon xam nañu la hauteur de des inondations mais tu fais au plus à trois cents mètres ce que j'ai dit des rétenteurs mais moyens si la hauteur est de un mètre tu multiplies par deux si c'est bu bu fekkee ni hauteur ndox bi un mètre la nga maanaam rétenteur bi day nekk mooy deux mètres pour euh, pour xaalis bi ñu ci ñàkk maanaam du bëri bu fekkee ni deux mètres la tu fais quatre mètres ainsi de suite mais ndox mi bu fekkee ni maanaam euh, sur euh, euh sur Euh, le centre de gravité le le les point mais médian foofu boo ko jëlee diriger ko maanaam ci rétenteur bi rétenteur bi xam nga maanaam genre piscine lay nekk boo xamante ni boo defee ci suuf benn tuyau de diamètre mais un mètre. Mhm. foo ko bëgg a raccorder dans les canalisations mais urbaines di ko mhm. mhm. def. boo ko amul. lan ngay def. boo ko amul. nee naa la amul point bleu bu nekk fii dans la capitale distance am ak géej gi dépassé huit kilomètres. li may wax maanaam wax. wax parce que damay xaw a am jaaxare ah. tuuti parce que boo xoolee ci diwaanu parcelle mooy euh, zone VDN 3 bi soriwul dara ak li nga xam ne nag moom moo jëm ci géej gi waaye ndox bi mun munul munul dem ci géej gi lan moo waral loolu. parce que y a deux la nature ñaari mbir moo mën a indi inondation mhm. ndox mi taxaw mhm. nee naa la ban ou bien mu am benn crevasse benn dénivellement mhm. d'accord donc nature yooyu boo ko xamee de de de de manière spécifique ngay agir et la technique restera mais la même. Mhm. la technique mooy mooy lan fi nga xamante ni mais taana nan ngay defee beneen crevasse mu wadd fa te du gêner doomu aadama yi crevasse boobu c'est juste pour que doomu aadama yi mën a circuler. Mhm. ci crevasse boobu nag. ci fond bi ngay def maanaam benn tuyauterie raccordé ko dans les canalisations. Mhm. loolu nga yaakaar ni maanaam euh, euh, euh, les techniciens mais les ouvriers mais sénégalais maanaam mënuñ ko def mais arrêtez. il faut que ñu gëm suñ bopp mhm. il faut que maanaam euh, ñu jub bàyyi yëfu saay-saay yi mhm. parce que li ma gis ni mhm. affaire u saay-saay la euh, na na na nañu yërëm askan wi est-ce que yaa ngi imaginer toute une famille maanaam ñuy xuus ci biir ndox mi amuñu sax fu ñu teg seen bool pour lekk arbitre euh, ma mu nañ ci jëlee ay arbis mu nañ ci jëlee palu choléra et puis en plus pire encore parce que xëy na ñeneen ñi buñ koy def tayuñ ko ndox mi mooy ñëw dugg seen fosse septique yi. Mhm. vider lépp source de choléra. doy na waar quand même ah. source de choléra. ok non amul doy na waar ah. man je ne suis pas mais dans l' émotion. cela veut dire que tey fi nekk nii. Mhm. suñ xaalis am na am na kuñ ko jox. Mhm. mu tudd la président Macky Sall. moo tax mu santaane. non et non et non mu tudd le président Macky Sall. man li may wax moom tey fi nekk nii. il faut qu'il rentre dans une phase de fermeté. ñi mu jox maanaam liggéey bi. ñi mu jox liggéey bi. ñu rendre compte ñu rendre compte mais tout de suite. ok maanaam bu jubul. mu dugal leen ci kaso bi. loolu ëpp na di. non mais comment ëpp na kon yow yërëmoo. yërëmoo maanaam askan wi sonn. mais prison bi nga tudd non dama lay laaj dem nga gàddaay yi. fa laa jógee. pour dama xool yi maanaam pour xool yi. et les gens qui sont mis dans l'eau ils sont pas mis en prison. ñoom nekkuñ ci prison. est-ce que yaa ngi imaginer. man dama dem ci benn kër goo xamante ne mais sax am na euh, mais jigéen bu ëmb bu am maanaam 7 mois. muy xuus ci ndox mi. sa c'est pas dégueulasse ça. doy mais bu ma wax doy na waar la solution est là. Mhm. on impose la solution au président Mbaye Macky Sall. Mhm. il faut que ñi nga xamante ne jox leen leen xaalis bi mu woo leen. Mhm. il faut qu'il fasse comme comme Déby il faut qu'il fasse comme Poutine sénégalais avec le comportement malsain. tey fu mu nekk nii. il faut de la fermeté waratuñu taxaw ci sentimentalisme. sept cent milliards xam nga ñaata la. bëri na ça fait sept cent sept cent mille millions. le linéaire de PVC jarul loolu le linéaire PVC yu ndaw yi ngay xamante ne moom moom mooy euh, yu ndaw yi ñuy def ñun. Mhm. mais ñun il nous faut mais des diamètres. Mhm. des rayons de un mhm. PVC cherul sëriñ bi. ok sur huit kilomètres je peux faire le calcul bi tout de suite. ñu avancer ci waxtaan bi il faut qu'on arrête c' est que tey fu mu nekk nii. le président may Macky Sall. liggéey bi mu joxe. il faut mu taxaw. il faut mu taxaw woo nit ñi dem sur le chantier. ñëw ñëw fii ci euh, euh, maanaam euh, zone de captage. Mhm. jaar Grand Yoff mhm. mhm. moom na sol dàllam na sol ay na sol ay ay ay yére jàmbaar. dugg ci banlieue bi. jël katkatam. ànd ak nit ñi. ok xool parce que tant que mbir mi ñoo la koy nettali. xam nga tey fi mu ni man. bu ma lay wax ne Europe France dafa sedd Russie dafa sedd da yaakaar ni boo indee àndu cuuraay. di nga ci génn. mooy quarante cinq degré mooy trente boo tifli balay tifli bi de egg nekk glace. tey fi mu nii la président Mbaye Macky Sall c' pas le fait que. mu toog ci palais wala Mermoz. il faut mu dugg dem ginnaaw ray ok dem gàddaay dem Thiès dem Touba. jël otoom dem. nit ñi xam ni jóg na. jóg na pour constater nit ñi fi ñuy dund. nga xam ni da ngay yeewu. Mhm. do sa gaz doo ko sa gaz. Mhm. doo ko mën a teg ci ndox mi togg. il faut que mu teg loolu bëtam. ponk yi ñu war a waxtaanee bëri na faaw ñu avancé mbokk yi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 tey ñu woote plan Orsec. ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mu ngi koy jiite euh, ñàkk nga ñàkkul ni ay ay dogal wala ay instruction dina ci jóg tey ñu mën a egg tey ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci mbënd mi mun ko éradiquer mu jeex tàkk mais dañuy waxtaan li nga xam ne nag moom moo jëm maa ngi ñëw la nga xam ne nag moom moo jëm tey yaa ngi koy wax léegi ca Touba assainissement bi itam xam nga ni sooxee woon na ko fa tey lan lañ mën a jàpp ni foofu ca bërëb Touba mbir mi euh, mi ngi dalandi léegi euh, li nga xamante ni ñun moom lañ jàng mooy problème bu fekkee ni dafa complexe da nga koy da koy diviser en unité simple mhm. bu fekkee ni dañu bëgg a régler problème mu mbënd mi. Mhm. il ne faut pas qu'il y une solution globale globalisante. dafay sori. dafay sori. Mhm. secteur bu nekk mu dajale commune yi nga euh, euh, mairie yi nga xamante ni c'est des c'est des mairies de zone bleue sensible. Mhm. mu dajale leen. wut. l'homme inondation de ce secteur-là. le secteur S1. ñu évaluer le secteur S1 euh, maanaam ñaata point bleu ñoo fa nekk mhm. mën nañu xam ñaata mètre mais linéaire de canalisation mhm. et puis xool est-ce que foofa di taa parce que y a deux natures pour mu taa mhm. mu nekk foo xamante ni argile la wala mu nekk foo xamante ni c'est c'est un dénivellement loolu lépp il faut ñu renseigner le président bi Macky Sall bu fekkee ni maanaam dafa nekk foo xamante dafa xóot loolu il faut des motopompes il faut des camions mais citernes après ñu xool zone boo xamante ni camion citernes yi dana ne euh, bu affaire amee rek ñoom am nañu protocole bi ni fa ni fa lañ koy sànni ñu créer état boo xamante ni euh, mën nañ ci def ay jën mën nañ ci def lu nekk quoi. Mhm. donc euh, ñaari nature yooyu. il faut que mhm. le président Macky Sall. Euh, ci Touba am na ay yokkute léegi ci assainissement bi léegi. non ça veut dire que yokkute Touba moom maa koy gis parce que fa la dëkk ci la bokk. moo tax mais man fi mu nekk nii man li ma bëgg. Mhm. bëgguma bëgguma def. wax ñu bu Touba comme solution la d' abord. oui cela veut dire que mhm. mais mhm. Touba. Mhm. zone bi nga xamante naka ngeen def tey ba. voilà non non non zone bi ñu defar mooy la zone de mo euh, la mosquée. mais boo demee ay Madiana. Madiana loolu lépp géej la. géej la moo tax may wax fu mu nekk nii ñaari nature euh, maanaam euh, ndox muy taa moo am. ndox muy taa ci ban ndax ndox du taa ci suuf mhm. ak ndox muy taa foo xamante ni dafa xóot mhm. maanaam genre ravin mhm. donc ñaar yooyu il faut que Macky Sall ñu wax ko ni ko dans ton pays am na par exemple dix mille points bleus yoo xamante ni maanaam euh, dafa nekk un mais négatif wax ko ni ko par exemple y a mille points bleus yoo xamante ni maanaam ban la bu boobaa bu ci nekk ak ak ak solution la am na ci foo xamante ni ndox mi mënul la dem ça va prendre mais amee du temps carburant et là tu es obligé nga am pompe yoo xamante ni ñoo la koy aspirer defal la ko ci citerne mhm. entre temps le président bi Macky Sall dina wax ni dans telle zone loolu dama ko réserver en cas d'inondation mhm. te loolu bu ko réserver en cas d'inondation ñu fay yóbbu maanaam li nga xamante ni maanaam eh, maanaam épurer nañ ko mhm. loolu am na yeneen solution agricole am na yeneen solution industrielle yuñ ci mën a def euh, tey fi mu nekk nii defar un plan mais global. Mhm. Euh, bu diri euh, boo xamante ne Aliou Ngouille moo koy diriger mi sur le plan mais Orsec. Mhm. plan mais Orsec waratuñ ko wax. Mhm. plan solution rapide et urgente loolu la ñu war a wax. te la solution rapide urgente. il faut que ñu daggate euh, la cartographie mais des zones bleues. et puis ñu xool nan la ñuy responsabiliser mais les maires. et puis mu am un monsieur inondation mhm. dans chaque sectorisation ci ci loolu sax xam nga ni maire yi dañuy néew doole wala dañuy néew koppar bu baax tax ma ni la maa ngi ñëw justement maa ngi ñëw mhm. moo tax maire yi dañuy néew doole euh, koppar gi nga xam ni moom la ñuy xeexee tey inondation yi ndax ñoom boo leen waxee dañ naan amuñu moyen bi pour xeex état moo am est-ce que tey waruñu leen boole puisque ñoom ñoo gën a xam nit ñi yenn localité yi nga xam ni dafay taa tey ñu boole leen ci bu ñuy jël ay dogal ñu boole leen ci bravo Dramé damay lay jox réponse boo xamante ni yëfu nit ku nite la à Dakar nous sommes euh, combien quatre millions de personnes. Mm-hmm. Dakar quatre millions de personnes. Mm-hmm. bu ko nekk di joxee ñaar fukki dërëm par weer. solution la. sur du mois c' est pas c' pas mille francs par personne. Mm-hmm. quatre millions fois mille c' est pas quatre milliards. bëri na. quatre milliards bëri na war a bëriwul. bëri na kon nag il faut de la volonté et la solidarité nationale. il faut que ñun ñooñu ni ñooy dox ci mbënd bi suñu doom di arbis mhm. suñuy mag di daanu il faut ñu xam ni que euh, am na ci loo xamante ni ñun il faut ñu am ful ak fayda. Mhm. donc askan euh, wi euh, mhm. non laisse-moi terminer. parce que nee naa ñaari point mbënd moo am. mbënd ci kaw ban. suuf moom maanaam éponge day naan ndox mi. mbënd ci loo xamante ni maanaam dafa dafa def crevasse. léegi il faut man dakaar Macky Sall xam ñaata point de nivellement bas ñoo fi am. il faut moo xam ñaata point euh, euh, maanaam mëddu ban moo fi am. Mhm. loolu boo ko xamee dina xam nan lay répertorier les camions et citernes. mais tey fu mu nekk nii buy ta taw gàddaay mën na bañ a taw fi ñu jël lépp mobiliser ko mais gàddaay et cetera et cetera. Mhm. et la technique je te dis tey fi mu nekk nii li nga xamante ni maanaam xew na xew na Thiès. Mhm. parce que Touba moom xam naa ni ni ñu démarré ñoom dinañ ci génn avec Touba ci kanam. mais mais gis nga tali Thiès bi nu mu nu mu ngandee. Mhm. gis nga ko soit tu fais comme les Gambiens ma euh, dafa mel ni Sénégal yi duñ dem Gambie Gambie dañu def ay rigole maanaam euh, ci boori mais man du ma def la solution mais gambienne je vais faire la solution mais sénégalaise ci diggu tali bi déjà ça va régler ça va même des problèmes euh, de de de de de de mauvaise circulation. Mhm. gars yi ni ñuy jégee di def def n'importe quoi ci diggu tali bi. la ñuy gas benn rigole de trente centimètres mais de largeur et une profondeur de soixante mais ndox mi bu ñëwee mais fa lay jaar ndox bu amee voie bi muy jaar mën nga ko maîtriser wala mën a ko maîtriser da koy maîtriser mhm. donc le problème mooy tey fi mu nekk nii il faut Macky Sall se débarrasse des saay-saay saay-saay yu bon yi yàq liggéey bi mhm. maanaam ñooñu il faut Macky Sall damm seen loxo foo xarti li jot jël mu delloo ko askan wi. Mhm. c' est comme ça qu'on dirige un pays. bu ñu ko defee. Mhm. maanaam ñu dem. ok waaye Sénégal mu ngi ci ñaari crise comme mën nañ koo waxee noonu inondation bi teew coronavirus bi itam ñëw fi teew donc mu nekk ñaari mbir yi nga xam ni ñëw na sunu réew actuellement nii euh, tey nan lañ ci war a mën a génnee tey. Euh, coronavirus du du crise ce sont les effets qui sont. effet yi nga xamante ne mooy tourner autour du corona loolu moom mooy moom lañ mën a tuddee mais crise démocratie sanitaire bu suux hmm. récession économique mondiale à hmm. onze pour cent dinañ ci ñëw probablement hmm. allez-y au Sénégal euh, parce que quand il euh, raisonne il raisonne a moyenne mu ne même ñi xam mënoon a yàqulu moom des ñi xam di jëf est-ce que ñun ñëpp ñoo ngi xam ñoo ngi jëf mu ni même ñi xam di jëf mënoon a yàqule ba mu des ñi xam di jëf teg seen tànk ci dëgg est-ce ñun ñëpp xam nañu ñoo ngi jëf est-ce que ñun ñëpp xam di jëf teg seen tànk ci dëgg mënoon a yàqule ba mu xam di jëf teg seen tànk ci dëgg bu ànd ak que ñun ñëpp sell nañu mu même ñi xam di jëf teg seen tànk ci dëgg bu ànd ak sell mënoon a yàqule ba mu des ñi xam di jëf teg seen tànk ci dëgg bu ànd ak sell bu ñu teewlu fii dara lañ teewlu xam la moo tax maanaam teewluñ mm. teewluñ dara ñi nekk ci kaw dañoo sañ seen nopp bi nga xamante ni maanaam euh, maanaam egsi na premier ñuy wax maanaam terre bi dama dem maanaam ginnaaw rey déglu euh, euh, monsieur le maire ñu ni moom may fii de maanaam mais pratiquement avant ñuy ñuy imposer lii waxoon na leen ni tunnel bii maanaam du nekk fii et cetera et déglu ñi ni mais nit ki xam nga tey fi mu nekk nii man bu ma demee Japon ñu may jox seen mais maanaam seen sushi ni yaakaar ni teral nañ ma mun naa koo nangu ni rek mais man Sénégalais la bu ma toogee maanaam un mois lekkuma ceebu jën mais mais nan laa def donc la réalité sociale de proximité dañu war a déglu nit ñi boo dégloo nit ñi ñu teg la ci yoon tay Sénégal yaa y a seize millions de Sénégalais ku wax dëgg ragal yàlla xam ni quinze millions yi sonn nañu quinze millions yu yi sonn nañu parce que dinaa la wax dara di nga gis père de famille bu toog suba ba ngoon du am mille francs CFA doomam feebar mu war a jënd aspro munu ko def munul am paas bu mu ko yóbboo dalal jàmm wala feneen ak feneen ak feneen léegi ñu jox la sept cent milliards mag Sall yëkkati sept cent milliards jox leen ko ñu saax saaxee affaire bi ba moom mu jaaxle accepté na mu jaaxle mais il faut qu'il prenne de des décisions parce que 700 milliards yi moomu ko sénégal yi ñoo ko moom donc ñi ma ko jox dama leen di duma dama leen di duma dugal leen ci kaso bi ba dégg nga li ma wax duma dugal leen ci parce que yooyu je vais pas accepter quinze millions de sénégalais chaque année. plan Orsec mhm. plan Orsec plan Orsec plan Orsec ba deux mille cinquante. non et non et non et non. tey koom-koom bi sooxee na la ñuy def ba yëkkati. très bien koom-koom bu sooxee na je vais donner des solutions. mooy nee naa la je suis un homme de solution. et de proposition de solution. koom bi sooxee na lan mooy solution bi. bravo xam nga tey fi mu nekk nii maanaam le président Macky Sall bu ne mën na def des emplois mais mais pérennes CDI bu ko waxee waxul dëgg. il peut en faire euh, quelques milliers. Mais des activités salariales de proximité génératrices de, de ressources mën na ci def cent soixante mille par an at mu jot loolu mooy ñaata ci olof. bari na. cent soixante mille mooy ñaata ci olof. téeméer ak juróom benn fukki ak lu topp. junni. Mhm. di dem. cent soixante mille. Mhm. xam na nan laa koy defee danaa la ko wax. Parce que je fais partie des meilleurs algèbres, de meilleurs algébristes de la planète. de l'économie les calculs mais économiques. Mm-hmm. lu ma la wax rek dama la koy tegal ci loo xamante ni maanaam nit ñi mën nañ ko dégg. Mm-hmm. nee na la le budget du Sénégal du quatre mille milliards. oui quatre mille milliards boo jëlee un pour cent bu la neexee nga nga calculer ko ça fait quarante milliards. quarante milliards mooy quarante mille millions. quarante mille millions. boo ko daggatee en unité d'activité salariale de deux cent cinquante mille di nga jox cent soixante mille jigéen fii ci Sénégal man jigéen ñi laa njëkk a toppatoo de barke sëñ Touba jigéen ñi liggéey maire bi yenu panam am vingt mille trente mille cinquante mille di jaay jën ñooñu lay njëkk a xalaat cent soixante mille jigéen en deux mille vingt man jooma deux mille vingt et de quelques mois moo ñu dese dam Macky Sall na jël bu bëggee gars yi maanaam euh, xeex mu toogaat fi na jël un pour cent du budget mu nekk quarante milliards quarante milliards c'est quarante mille millions quarante mille millions mu daggate ko en en unité d'activité économique salariale de proximité mooy lan danaa jël cent soixante mille jigéen yuy yuy góorgóorlu ci Sénégal ku ci nekk ma jox la deux cent cinquante mille ñu sukkali ko mayuma leen ko. non waxuma may jox leen ko ñu ñu tàggat. ñu liggéey am ci comme. ña ña leen di dina am structure. Mhm. de de comptabilité mais de gestion. Mhm. boo xamante ni mun naa jël une centaine de personnes. ay xale. Mhm. jox leen am xëy. wan leen ñi nga xamante nii ñoo ngi liggéey dans les activités salariales de proximité génératrice de ressources. ce sera une première sénégalaise une première africaine une première mondiale parce que tey économie Afrique mhm. économie Sénégal dafa war a génn dans le concept du PIB produit intérieur brut man xam nga lan laa inventé mhm. et c'est un Sénégalais mooy lan moo jàkkaarloog yow mooy lan Serigne Khadim Rasoul le BNB mhm. le BNB bonheur national brut Sénégalais bu nekk da nga war a gis sa bopp ci koom-koomu Sénégal sénégalais bu nekk mhm. da nga war a gis sa bopp ci koom-koomu Sénégal c'est-à-dire la philosophie de l'économie ce n'est plus une économie boo xamante ni quelques nit ñooy nangu alal ji mais ñëppay bokk ñëppay bokk après dinaa la woon mhm. la feuille de route sur les matrices mais des salaires mhm. dinaa la woon tey fi mu nekk nii nan lañu ñu mën a def pour que jeunesse bii nga xamante ni amuñu liggéey amuñu formation te ñoo xamante ni maanaam à onze ans mhm. seen bàyyi mënatula la assurer nga toog ak ñoom di wax tu sens ni kii dañ ko pousser vers la voie de sortie te wóoruloon na dem mu ni baayam amul xaalis wala ndeyam amul xaalis est que dañuy bàyyi affaire bi noonu la réponse est non ak man barki Sëñ Tuubaa daa damay introduire li nga xamante ni xamoon nañ ko la nation et l'armée xale yi am dix ak vingt ans mhm. boo feebarul dara jotu la damay def comme mamran fii ci Cambérène mamran xalif man sëñ Tuubaa laa bokk mhm. mamran ma jox ndigal pour ma dëkk Cambérène mamran bu huit heures mosaan jot day wër Cambérène xale bu góor bu gis tool ya moo lay gunge. solution bi loolu la solution mais nag man la solution elle est national la solution n'est pas une solution mais des quartiers. tey fu mu nekk nii un système militaire pour les jeunes. une intégration. boo xamante ni da ngay jox askan wi jigéen ñi un an la ñuy jox askan wi góor ñi deux ans est-ce que yaa ngi imaginer ni Sénégal am na ndox teg nga ci sa est-ce que yaa ngi imaginer ma am cent mille jeunes âgés de dix huit à vingt ans Sénégal am na am na ndox am na am na suuf. Mhm. tey fi mu nekk nii si c'est loo nee na sax maanaam mënuñoo am un million de tonnes d'arachide avec cent mille jeunes mënuma am dix millions de tonnes par par a est-ce que yaa ngi imaginer dix millions de tonnes ma maanaam d'arachide ñaata. usines yuy defar huile ñaata usines yuy defar saabu ñaata usines yuy defar maanaam rakkal ça veut dire que li ma lay wax ça va générer mais d'autres ressources. Mhm. mais léegi ñu ni ma xale yi nan la ñuy def ba encadrer leen mais li ñuy bay moo leen di fay li ñuy bay ci ngay génne seen i prix. Mhm. loolu solution la wala du solution. c'est une bonne solution une solution. mais te war nañ ko adapté. dañ koy adapté. Mhm. parce que munoo bàyyi xale yi ñu naan ataaya. munoo bàyyi xale yi maanaam ñuy wëndeelu et cetera et cetera. parce que tey fi mu nekk nii mais le problème. le problème numéro un que nous avons c'est les comportements malsains ñun xamuñu lan mooy la nation xamuñu lan mooy la démocratie xamuñu lan mooy l'État xamuñu lan mooy les biens publics parce que le système sénégalais ni muy doxee maa ngi jégalu baaxul on fait de l'auto-éducation ku ci ku ci nekk da ngay jéem a yar sa bopp il faut une éducation institutionnalisée tey fi mu nekk nii bu ñu amoon cent mille jeunes mbënd mi. Mhm. am na est-ce que yaa ngi imaginer cent mille jeunes ku ci nekk yore si woo di tànk même bu ñu amul même bu ñu amul ay autociterne est-ce que yaa ngi imaginer loolu est-ce que yaa ngi imaginer intrant yi nga xamante ni ñoo ngi koy sàcc ci baykat yi Macky Sall subventionné ko à sept mille baykat yi di ko jël à quinze mille est-ce que yaa ngi imaginer Macky Sall jël xale yooyu ñu war a distribuer maanaam les intrants yu muy jëndal bopp ñoo bëgg ko jox maanaam askan wi. donc solution bi mooy du tous ensemble le Sénégal en mouvement mhm. ñu jël nag réew mi jox ko ci ñu ay ñoo xamante ne amuñu caaxaan mhm. caaxaan faaxee caaxaan faaxee parce mhm. que ma nettali la loo xamante ni daf ma dama daf ma dal dama ñëw vacances ci benn boutique bu nekk fii mii ci ma seeti sama tante à neuf ma dugg ci boutique bi fekk benn xale bu am sept ans mi ngi yuuxu bopp bi moo doon metti boppam moo doon metti mu ànd ak yaayam yaay ji euh, nga gis maanaam mu jaaxle completement ñëw ba ci boutique ñëw ba ci boutique bi nii borom boutique bi lebal ma juróomi dërëmu aspro xam nga la ko waa ji tontu duma la lebal ndax doo fay bor waa ji ci boppam calculé wul ndax sax ni xale bi peut-être mën naa am méningite dès léegi moom li ko li ko ñor mooy xaalisam na dugg keroog dama ànd ak tàngoor parce que dama ànd ak tàngoor sans arrêt j'aime pas l'injustice keroog ma ni euh, euh, Diallo la ah, du ma ko nëbb c'est pas un sénégalais c'est boo ñëwee fii mi mooy boutique bi nekk ci angle bi du ma ko nëbb ma ko jox ko paquetu aspro bi mu jox euh, mu jox ko paquetu aspro bi et par réflexe comme ça comme ñun Sénégal boo sibro ñu ne nañ ko jëndal gazelle def ci meew tout ça ma ni Diallo bi ubbil ko gazelle bu mag. ak meew gloria mu ubbi gazelle bi xale bi naan ci mu defal ko meew gloria bi xale bi di naan ba quelques minutes mhm. yaay ji yaakaar ne xale bi day naan biteelu un litre bi tellement que le gosse avait faim yaay ji ni ko may ma ci bu ko jeexal mais je te dis keroog sama àdduna dafa tukki pour la man gis nga ñi ma xam fii fii xam nañ ma de euh, Serigne Khadim Rasoul ñëpp xam nañ ma jooyloo ma il jooyloo ma munul nekk mais keroog sama rongoñ bi muy tuuru tayuma ko mhm. ndax man dama judduwaa dama judduwaale yërmande ci doomu aadama yi sama maam laata muy dem loolu ko doon wax ñaanal ma rek pour ma mën a xettali doomi aadama yi parce que xiif dafa metti mhm. nekk boroom kër euh, yoroo dépasse dafa metti ah, moo tax lépp loo xamante ni yore naa ko mhm. ñaanuma yàlla mu taxaw sama loxo damay joxe rek di joxe rek te nit ñi mun nañ def enquête foo ñëpp xam nañ ma mais nag bu ma sañoon mhm. ñu organiser réew mi mhm. ba ñëpp am te dafa am doomi sëñ Touba lu mu wax mhm. doomi sëñ Touba sëñ Abdoulahat nee na ñu gaawante fii jamono ju néew di nga bëgg a gis koo dimbali doo ko teg bët cela veut dire que mbir mi si na am nañu loo xamante ni bu ñu ànd ak dal organiser le bas peuple le Sénégal d'en bas. duñ mhm. du duñ souffrir. ba pare nag. Mhm. Mhm. ma terminer foofu après jox la. waaw acca. sëñ Muntaxa. Bassirou Mbacke yàlla fi acteur. mais li mu wax bi mu toogee dans les quarante huit mais dee leen ko teg Sénégalais yi dégg ko. ñëw leen ñu dem. ci loolu la ñuy ñëw ci wàllu koom ñëw leen ñu dem ku dem ma dem ku demul ma dem. ñëw leen ma dem ñëw leen ñu dem et tout de suite. en moins de deux ans pratiquement terminé na une université qui va prendre plus de trente mille étudiants uh-huh. waaye sëñ bi sëñ bi ñi nekk ci kaw buñ mënul nañu déglu le Sénégal d'en am na ñu nekk ci biir Sénégal d'en bas uh-huh. mën am na solo am yéene li ñu desee ci waxtu daanaka juróomi simili la wala juróom-ñaari simili nan aborder question Touba tey xalif bi nee na nañ dem màggali coronavirus bi mi ngi fii ci wàllum koom sa xam-xam màcc na ci wàllum koom est-ce que tey dàqoon màggal bi tey dina doon nekk enjeu bu garaaw tey ci wàllum koom comme tey indi war nañ ko Sénégal li muy jëlee ci koom ci màggal bari na de. màggal gi yàlla moo wax sëñ Tuubaa mu woote. Mhm. màggal gi yàlla moo protéger sëñ tubaab ba kenn mënu koo annuler ci àdduna mhm. ndax màggal gi ñaari form la la am. de Serigne Touba. ba mille neuf cent quarante cinq màggal gi ku ci nekk sa kër nga ko doon defee. màggalal sëñ Touba. parce que sëñ Touba moom vision bi mu yore dafa garaaw. bi nga xamante ni sëñ ñëw na en 1945 na am mu am. moom moo indi màggal gi Touba. kon màggalu sëñ Touba kenn mënu ko annuler. buñ bu ñu defee forme sëñ Fallou baax na. bu ñu defee forme sëñ Touba baax na. mais nag li wérte mooy. depuis quelque temps. li nga xamante ni moo jaaxal nit ñi mi ngi tasewu dans un rétrécissement mais constant. Mhm. boo déggee léegi ay benn la ñuy wax ay ñaar lii fi nga xamante ni la ñu war a solliciter sëñ Mountakha mu wax. Mhm. les mesures barrières. mu insister mhm. ndax taalibe yi murid yi sénégalais yi cinq cent mille masques li nga xam ni war nañ ko mën a defar jox ko ñi nga xam ni ñoom ñoo war a ñëw tey ci euh, déclaration bi tey loolu la tukkee cinq cent mille masques ak euh, lépp loo xam ne jëm na ci mesure barrières yi conférence yu ñu doon faral di def dañ koy def visioconférence mm-hmm. kon mi ngi mel ni jël nañ ay matuwaay. est-ce que xam nga ni euh, le président Macky Sall am na chance boo xamante ni bu extraordinaire boo xamante ni mën na ko exhiber sur le plan mondial. màggalu Touba mooy permettre au président Macky Sall mu mën a am cinq millions de personnes yuy jëm ci benn endroit mu mën a njëkk a def le premier diagnostic Covid xam nga diagnostic Covid lan la. Mhm. da ngay ñëw ñu jël sa température. bu ëppee trente bu nekkee trente huit. Mhm. ñun la doo dugg Touba. bu boobaa sur les cinq millions de personnes ah, lu mu nekk ceeru Sénégal. Mhm. kon ceeru Sénégal Macky la mën na ko tester. pour xam ñi nga xamante ne seen température ëpp na trente huit. Mhm. sa température bu ëppee trente huit. ça ne veut pas dire que tu es le Covid mais duñ la bàyyi nga dem ci dëkk bi mais ku am trente six cas dañ bàyyi nga dem. kon Macky la am na tey loo xamante ni Macron amu ko Donald Trump. amu amu ko. c'est une occasion planétaire. mu jël dans toutes les portes d'entrée ñu sible leen déglu sëñ Muntaxa mhm. kuy dugg Touba ñu tegal la température kuy génn Touba ñu tegal la température jël sa tour jël sa numéro de jël say filiation mhm. bu boobaa ñun sur le plan mondial planétaire mhm. dinañu wax ni lii def nañ ko kon kay moo gën ñuy yuuxu di nax suñ bopp te nag dinaa la wax dara loolu moom loolu sama yëg-yëg la sama gëm-gëm la man sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul feebar bi yëg naa ni gëm naa ni mhm. ku jëm Touba mhm. bala ngay egg yàlla rocc ko mhm. kenn du jóge Touba indi coronavirus loolu man mooy mooy sama gëm-gëm mooy sama yëg-yëg na ñëpp dem Touba ok léegi ci wàllum koom ñu jeexal foofu ci wàllum koom di muy généré ci milliards bëri na lool waaw mais mais cela veut dire xam nga tey fi mu nekk nii bala ngay wax Touba les quinze euh, xam nga ñaata entreprise française ñoo nekk Sénégal deux cent cinquante

huit mille milliards jaratul ñu may wax maanaam les recettes yi état bi di mën a am maanaam ci Touba. Mhm. soyons sérieux il faut que ñu dëgër suñu suñu ennemi xam nga kan la du Macky Sall de. Mhm. l'ennemi des Sénégalais. Okay. c'est la France. bu Sénégal amee fit wax merde la France ñi jiitu wax merde la France ñu xool suñ bopp ni maanaam suñuy investissement ñoo koy defal suñ bopp Sénégal yëpp taxaw ensemble nous disons merde à la France. barke sëñ Touba réew mi dox. Mhm. ba pare nag ñu am ki nga xamante ne moom la ñuy jël vision muy vision sëñ Touba. disons merde à la France. Mhm. merde à la France. Mhm. et ñu yëkkati suñ bopp taxaw gëm suñ bopp. buñ ko defee nañ dem. tey kàddu gu mujj gi tey lan la. kàddu gu mujj gi mooy nañu waxante dëgg suñ biir. di jëf dëgg xam ni le Sénégal d'en sonn na. askan wi sonn nañu. Mhm. nañu bàyyi yëfu saay-saay yi. Mhm. def yëfu gor liggéey. président Macky Sall ne xam na ni maanaam ay saay-saay ñoo ko entouré. Mhm. na def filtre yi. génne leen dàq leen. ok waaw ah, c'est aussi simple que ça parce que yaakaar naa ni. Euh, euh, euh, saay-saay yi waruñu koo gënal boppam. waruñu ko gënal famille am. ba li xew Mali du egg si Sénégal. ok lii daal lay ñaan yàlla. lu ñu cëraloon ci waxtu jeex na mbokk yi sant leen gërëm leen sant professeur. mi nga xam ni tey bàyyi na yitteem Eh. jox leen dig daje ba beneen euh, yoon ak beneen invité. ci émission boobu ko jaral dama ko jaral parce que tey fi mu nekk nii mais suba à sept heures. incha dama war a dem euh, à la 2S. jërëjëf le matinal euh, demain man maa koy def. Mhm. merci beaucoup je suis l'invité demain.